di leen sargal waaye tamit di leen jaajëfal yéen yi nga xam ne rek yéen safoo di seetaan xibaar yi ci Equivox TV mbokk yi dal leen ak jàmm nee naa leen nag nii lay demee à chaque fois rek dañu yàkkamte rek ñëw toog fii ci plateau bi jàkkaarloo ak yéen di leen di faram fàcceel li nga xam ne rek dafay jógee ci làmb ji ma ciy ma ciy ànd ak Babacar tout temps Babacar nuyu naa la. maa ngi lay fay soxna Ami. ci loo nekk sant yàlla Babacar man tey dama waaru nga def sa sa tubayu xaftaan ba mu neex la nga teg ci sa sa sa nuñ koy waxatee sax. waaw lii dang dang say loxo ba ci kaw waaw du mën a ñàkk donc bat ci sot la bokk boo ko gisee li ko waral mooy xam nga rek suma xarit suma mm-hmm. ne ni moom mooy maillot bi muy basket mm-hmm. ma nekk ca Espagne mm-hmm. jox ma ko ne ma day moo tax nag tey comme mu ngi basket ma xëy tey sol ko rek pour jàppale ko di ñaan yàlla ñu gañe Cam ñu gañe Kenya actuellement ma euh, gañe bu leer amin loolu dafa ñu koy ñaanal rek ñu am ci ndam sotti ci def la Sénégal la <laughs> voilà téléspectateurs yi bu baaxee rek ñu dem seetaan revue des titres daal di del siwaat asalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum wa rahmatullah vendredi 19 février 2021 dañuy ñëw ak yéen ci yëglikaay yi sunu lamb la ñuy xëy doore ko yëglikaay bi di sunu lamb nag moom tey le roi des arènes la xëy fésal ci xëtam mu njëkk mu nga sol la nga xam ne bi nag moom dafa xëy sampab laaj la nga xam àndal daal di ramasser ñooña jàll seen kaw ne na loolu dina mën a jàll ci kaw Ama Baldé yëglikaay bi moo xëy tey samp boobu laaj leneen loo xam ne nii yëglikaay bi xëy na tey ñëw ci wala boog kooku moom ñi mu bëgg a jaar ci seen kaw la xëy di wax mooy la bu mbuur la daal ñett la jàpp ne ku ci lekk amaasam moom dana la teg ngelaw loo xam ne nii fu mu la fekk dana la mepp sànni la ca àll ba mooy ka nga xam ne nii moo di Gris Bordeaux ma nekk Fass Malick Niang mu yoof ak nga xam ne moo di ama neex mu tëngéej ñett ñi daal moom la jàpp ne képp koo xam ne nii fexe nga ba jël ci amaasam moom jàpp na ne moom boo bëggee dégg dëgg buñ ca demee ba jóge ca moom da nga ko réccu paka la moo waxee noonu tey ci yëglikaay bi nga xam ne moo di sunu làmb ñeneen ñoo xam ne nii moom fi mu nekk nii ña yor fañ leen teg maanaam daal fu sori la ñu ngi leen di surveiller bu baax baax ba tax na daal jël nañ leen dugal leen ci àll bi ngir ñu rëbbi muy na nga xam ne nii ñoom ñooy tigre ya nga xam ne ñoo nekk sa face yëglikaay bi ñëw na tey andi ñu ca ñett muy giri 2 ma nga xam ne nii rakki giri Bordeaux la Serigne Ndiaye numéro 2 ak général ñoom ñett ñi nag moom soo bëggee dégg dëgg ku ci nekk da ngaa gàddu ab avance bu dee Gris 2 mook Abdou Diouf jéy seen a fa jaar Serigne Ndiaye numéro 2 ka nga xam ne nii moom moo di soko sim moo lekk amasam moom itam keneen koo xam ne nii sàmbay moo ko tëgg mooy général digganteem ak kolifay numéro 2 bu caaro yi moo tax nag yëglikaay bi ne day Fass daal seen ñetti tigre yi moom ah soo bëggee dégg dëgg daal yebal nañ leen ci àll bi ñu rëbbi la tax nag waa Fass topp leen di leen bàyyi xel mooy dañoo jàpp ne ñii moom relève lañu ginnaaw ba nga xam ne Gris fi mu nekk nii ay atam ci làmb moom ci jeex la jëm te Papa Sow génn na écrit ba moo ki ñoom ci ba ñu ngi leen di surveiller bu baax a baax di leen bàyyi xel sunu làmb xëy tey ñëw wax nu lu mel ne ki noonu kii moom la mu tëggoon ba di ca bàyyi xel te coronavirus ba tax làmb ja amul fi mu nekk ni nag daa mel ni moom pare na ngir combat ba daal bu ñu commencé waatee mu ubbi baal ba muy ka nga xam ne moo di Baba Jaw borom cam production combat ba nag mooy diggante soq ak gàmmu géey moom daal fi mu nekk nii pare na nag ngir def combat ba bu fekkente ni ubbi nañu la nga xam ne nii moom moo di làmb ji ca Thiès moom kañ fa dénkoon làmbi raison ba di may sa njaay te léegi nag ñu jëlee ko fa dénk ko lépp luy làmbi dóor ci Sénégal daa mel ni ki nag place am booba nga xam ne ca la nekkoon te wàcc ko jël beneen place fa mu nekkoon nag daa mel ni keneen koo xam ne daal ñëw na fa léegi jël place ba daal def ñu daal di ko fay tabb muy Abibou Diallo daal lañ ñu xamal ne daal moom mooy président bu bees ba nga xam ne nii moom lañ fal fa nga xam ne moo di ca région de Thiès mu yore la nga xam ne nii moom moo di làmbi Thiès keneen koo xam ne nii moom maanaam li koy xaar mooy combat bu rëy rëy moom la dugg muy Papa Boy Djiné digganteem ak ka nga xam ne nii moom moo di bébé bis moo tax nag yëglikaay bi xam ne daal combat capital moo koy xaar la ko waral nag maanaam bokk na ci mu jéem a defaraat boppam gën a relancer la nga xam ne nii moo di carrière am moom Papa booy Djiné yëglikaay ba moo xëy ñëw tey wax nu ko waaye képp koo xam ne nii daal boo yaakaaroon ne Gàmbi moo di sab rawtu ngir nga war fa organiser sa lamb boo yeboo moom nga gaawtu jëkkanteeg taa bi ndax nag yëglikaay bi di sunu lamb tey ca tuus ya xamal nañu ne day combat France ak leket baar combat ba moom reporté par force dana ca am ndax yëglikaay ba moo ñu ko xëy wax la mu ñu nag nee na gouverneur ba nga xam ne ni daal moo nekk ca Gàmbi daal décision ba mu xam ne ni moom la jël mooy fi mu nekk ni ginnaaw le 8 mars bi nu jëm daal buñ ca yeggee lépp luy ndajem public maanaam dañ ko fay tere la ko waral mooy coronavirus ba te ku ne xam na ne leket ak France le 28 mars la ñu waroon a bëri moo tax yëglikaay bi jàpp ne day dana metti lool lool ca ka nga xam ne moom moo di jam production ak keneen koo xam ne nii xalaatoon nga def gàmbi lamb lu ko commencé ci biir mois de mars ba jëm ca kaw yëglikaay bi di sunu lamb moo xëy ñëw tey dinu wax lu mel ni ki noonu keneen koo xam ne ni moom mu ngay waaj a dem gàmbi muy rëg-rëg ànd ak kan Fallou Ndiaye ma ko fas yéenee sargal loola mu nga ci Equivox TV mel ni ki nag rëg-rëg moom fi mu nekk nii mook ay mbokkam ñu ngay préparé wu ngir le 27 ak le 28 bi ñu jëm daal ca Fass Ndiaga Coy ñu fas fa yéene nag dajajeeg Fallou Ndiaye maanaam ca 1 million 250 mille nga xam ne ca lañ fa teg fas fa yéene sargal ka nga xam ne moo di rëg-rëg ne moo di moo moo tax nag soo demee ca Equivox TV da nga fa fekk benn vidéo boo xam ne daal rëg dem bañ ko seetee mu nga ànd ak conteneur ak xale caaro ya ñuy bëri ca fa nga xam ne moo di tefes ga waaye diggante ma conteneur du ma leen wax la ca xew sa TV rek seetaani ko ñoom ñaar nanu wëree ak fa ndam la mujj ak ka mujj daan ak na nga xam ne noonu la daane waaye na ñuy ñaanal ñu daan tey mooy sunu lion ya nga xam ne ñu nga ca Cameroun di jongante ca basket ba muy ña nga xam ne moom moo di ñoom Youssou Ndoye ak ña mu àndal moo tax nag tey fii ma génn ma génn fi ndax dompat ci sot la baag te Youssou moo ma jox lii gomis ne ma dee ko sol ndax lii lay baskete fa nga xam ne moo di ca Espagne xamante nañu ah oui bonne saf la kii ah oui attention Jackson d'accord des titres Babacar ñu daal di ñëw ak ñun ñun ñëw ak yéen nag ci li nga xam ne moo di journal suñu làmb ci xëtam bu njëkk ñu fekk ki nga xam ne rek moo di Modou Lo muy waajal kombaawam ak ki nga xam ne moo di Ama ñu gis ne nag moom tempête bu rëy boo xam ne la yor ravagé ne ki nga xam ne moo di Eumeu Sène ngir la 2 ndax na woon fa woon lay demee wala. tam mooy ngelaw lu am doole. ñëw rek. <laughs> <laughs> di ramasser. <laughs> ramasser wu ñëw sàkket yaag néegi ñax yaag yu mel ni ki noonu. waaw loolu daal xam naa ne bu dee ñett ñooñ muy giri bëri na ñaari yoon. Mhm. giri ñàkk mu bëreeg ama seen ñaari yoon Eumeu ñàkk mu bëreeg Lac ñaari yoon ñu mat si nit benn mu gañe ko benn. mu mel ni kon ñooñu ku ci ne ah bu dee ngelaw la yor itam daa mel ni kon wan na leen ko. Mhm. mu Modou Lo ndax ngelaw lool nag dana fa jëlee ama loolu moom ah dañ naan. dañuy yónni yàgg parce que li tax mooy lu yegg seegul dañuy ñaan yàlla mu yegg seeg jàmm waaye loo ci mën a dégg ñoom ñaar ku bëgg fu mu fanaan la bëgg ku ko wéttali muy Modou ak ñoo xam ne lañ dañoo soxlaante buñ ko waxee buñ ko waxul loolu mooy la am moo waral tey seen combat am yaakaar naa nag ndax ndax Modou la mu def ñee dina ko def kii loolu li ma la wax rek dañuy yónni yàgg rek ñaan yàlla combat bi yegg seeg jàmm waaye xam naa daal xaw ma lu cay xew waaye bis ba moom dinaa la xamal da nga gis buñ fi yàlla bàyyi jàmm combat bu xat combat bu métti combat boo xam ne enjeu kese la mhm. parce que li tax mooy ku ci ne doo bëgg a ñàkk combat bi te wax ji waaw combat bi moo yàggu yoon mhm. yàggu yoon kooku mu yàggu yoon nag moo tax bis bu yàlla defee ñu war ko soufflé mhm. ah xaw ma Moodu dana yor ngelaw lu ubbi Ama wala Ama dana kale Moodu waaye loo ci mën a dégg du yomb si ñoom ñaar voilà ki nga xam ne moo di Pakala def yi fi mu nekk nii Gris Malick Niang ak Ama Neex waaw moom ne ñett ñooñu bëgg a laalante ah, ah waaw am na si droit bi parce que tam la te ci la ay defetam néew na lool moom paka la xëy na nag gis nañu ay combat xaw na bëriwul mais mbër mu xam ne la mbër mu jara bàyyi xel la mm-hmm. dafa naa tey digganteem ak Malick Niang làmb boole leen digganteem ak ama neex tamit kazalika naka noonu Gris Bordeaux itam bu ko neexee mm-hmm. am na droit défier Gris Bordeaux ñu xool ndax Gris ko nangoo jël wala déet waaye ñaar ñee des moom kuñ ci dox sa diggante ak moom yaakaar naa ko tegee nga ko mën a jël mm-hmm. bëre ak moom parce que làmb tamit noonu lay doxe te muy dëgg bañ demee fee ca Fass ñu fekk fa ki nga xam ne moo di Gris 2 Serigne Ndiaye 2 ak général ñu nekk nag ñoo xam ne dañoo nekk ci bopp écurie boobu fi mu nekk nii daal yaakaar lañ fa daal waaw parce que li ko waral mooy boo leen xoolee ñoom ñett ñooñ ku ci ne da nga yor combat mhm. Gris moom ak Abdou Diouf la général moom ak euh, Coly Faye 2 euh, Serigne moom ak ki nga xam ne moom mooy soo Sokosine muy ñetti mbër yoo xam ne tey ci biir écurie Fass ay yaakaar lañ fa mhm. boo xoolee ni ko yëglekaay bi waxee danga koy dëgg la parce que bu Gris Bordeaux tey boo boo bëggee dégg dëgg ay atam ci làmb ci jeex la gën a jege ka ni des ci làmb Papa Sow génne écurie ba dem bëri écurie kon defe naa tey ñoom ñett ñi ak yeneen xale yu mel ni ki ñoom ci biir écurie ba relève lañ ne nii tey kon ah, moo tax fi mu nekk nii daal gars yi danañ leen sàmm bu a baax a baax te comme la ñu yónni nag ci àll bi ñu fas yéene rëbbali leen comme ñoom ñooy yu ndaw yi actuellement mm. moo tax xam naa ñu di leen bàyyi xel rek te muy dëgg euh, bu ñu demee fële ca CRG bu Thiès ki nga xam ne moo di Abibou Diallo nag moo fa wutu Maysa Ndiaye waaw loolu day xel nangu na ko ndax ki nga xam ne nii moom mooy may euh, Maysa Ndiaye ku ne mm-hmm. xam na ne euh, moom fi mu nekk nii moom la ñu dénk làmbi Eh, dóor ci réew mi yëpp yëpp Sénégal moo jiite woon CRC ba mu fa jógee ba tey nag mm-hmm. gisuñu kenn ku jël place am depuis ba ba tey ay weer mm-hmm. yaa bu yàlla dogalee nag Abibou Diallo jël ko ñu ngi ñaanal Abibou Diallo rek mu réussir mm-hmm. la nga xam ne mooy mission ba nga xam ne moom lañ ko dénk foofu nga xam ne moo di ca Thiès def fa lu raw lu may sa jaay deful foofu Baba Diaw pare rek ngir ubbi baal bi maanaam combat ki nga xam ne moo di soq ak gàmmu waaw Baba Diaw borom Thiam production ma koy nuyu di ko ziar borom Soumbédioune ah moom defe mhm. naa ne combat bi boo gisee ñu ne moo mu mu ubbi baal bi mhm. bi ñu ne corona bi arrête ba président Macky Sall joxe jëlee décret mhm. bés boobu ci la euh, xale bi ñuy wax bébé Diène ak euh, xale bi dëkk Grand Yoff Fourrière doon bëri bët set dimanche ba ñoom ñaar ñu waroon a bëri muy soq ak gàmmu gi far arrêté euh, décret ba génn affaire ya taxaw mhm. yaa ngi dégg kon defe naa tey buñ nee ubbi baal bi moom defe naa bu làmb ji ubbee ah yaakaar naa mu war a ubbi baal bi ci sama xalaat te ngi dégg bu paree ngir def ko nag yàlla na loolu man a nekk parce que combat la boo xam ne tamit muy soq gàmmu gi képp kuy dund làmb te di amateur yaa ngi koy xaar te muy dëgg Babacar coronavirus bi tënk ñu bari fii ci Sénégal ba li nga mhm. xam ne làmb ji mënuñ koo dërmal ba léegi mhm. ñëpp daan daw nag di dem Gàmbi mais am na loo xam ne ndogal boo xam ne euh, président ba jël na ko muy à partir de mars lépp luy am rassemblement ca Gambie rek dañ koy tere te combat France ak leket ñu dënmaloon ko foofu nu muy demee nga yaakaar. waaw doy na waar parce que su ma jumul gouverneur ba lañ wax lépp loo xam ne moom moo war a dajale ay mbooloo. Mhm. à de 8 mars dañ ko fay tere. Mhm. ah bu dee xibaar bi nag ni ñu ko gisee ci journal bi lu dëggu la moom. Mhm. ah dina metti parce que ku ne xam na ne suma rakk suma frère sama xarit jamaïcain ku ne gis na bëri ki démb face à face bu rëy ba mu fa def. doon waajal combat France ak Leket mu nekk combat boo xam ne Sénégambia yépp ko doon xaar. ñu waroon bëri le mars. defe naa tey bu ñu nekkoon à partir de mars lépp luy rassemblement public dañ ko fay tere kon da naan kon loolu malheureusement dootul am nañ ko doon xaare mm-hmm. ah ñu ngi ñaan yàlla nag yàlla na yàlla def sa balaa le 8 mars boobay jot coronavirus bi jeex ci Sénégal ak Gambie. vaccin bi yegsi waaw man ah pourquoi pas du ma piqûre mais lan la bu hmm. fekkente ne luy faj la te damaa yaakaar ne xanaa hmm. kenn amut xalaat bu bon wala bu bu xam ne nii hmm. di nga jël lu bon nga di ko jox saw askan ñu di ko kii man de am naa ci njort bu rafet eh? waaw man Babacar dama li may wax man na engagé am naa ci bu rafet parce que comme ñi koy saytu ay médecin lañ ak i boroomi xam-xam pour lu war a tax coronavirus bi taxaw dootul exagéré di màgg defe naa bu dee pour loolu la njariñ rek la war a doon te damaa yaakaar ne loolu la war a doon ci sama gis-gisu bopp man. te muy dëgg oh, waaw. Bakar boo ñëw Equivox loo fay fekk nga wax tey. Equivox moom rëg-rëg lañ fay fekk. Mm-hmm. moo xam ne nii démb moo conteneur laale nañ laale bu tar fa nga xam ne moo di ca tefesu caaroy ga. Mm-hmm. waaw loolu nag. ku bëgg a gis mbir nu mu mujj ak ku daan da dem foofu nga seetaan fa rek vidéo ba la ko waral nag dem dañ ko seeti woon ndax ku ne xam ne mhm. ne mhm. mu war ko fa sargal moom Fallou Ndiaye ak nga xam ne mooy moo get Las Vegas ca états ah, loolu loolu lay neex lay <laughs> tàngatoo waaw kontaan rek ñaan yàlla jàmm ñaanal ko mm. bépp doomu Sénégal di ñaan tamit xam nga àddina bi feebar bi ñu tënk ba tax tey lu baree bare mënatuñ kaa def yàlla na ko fi yàlla jëlee ba ñu continuer suñu activité parce que tamit olof nee na jaboot jàmmay mbokkam te ku ne xam na ne coronavirus moom loo ci mën a dégg du jàmm ndax loo xam ne ni tere ñi joxantey loxo tere na ñu nit ñi daje tere na bu ami bu ñu takk ami du ma mën a dem <laughs> ah yow buñ ma takk coronavirus lépp moo fa jaar sa masque ba mu rafet nga ñëw. ah du ko nangu. ah kon kon amul muskila. waaw loolu lépp boo gisee ñu koy xalaat coronavirus tax kon yàlla na dem ak jàmm. amiin ba ñu mën a nekkaat suñu activité normale. amiin waaw. voilà xibaar jaar fa nekk ndar keppe mbokk téléspectateurs yi ñu doon a seetaan ñu ngi leen di jaajëfal di leen jox rek dig daje ëllëg incha allah. Mendy ah ouais attention Jackson daanu